voilà donc euh, Fatouche euh, bii ngay nuyoo suñu ndoxteelu émission xamle woon nga ni que tey mindaan yi nekk ci biir kër yi ci jeunes yi surtout moom ngay waxtaanee ñi nga xamante ne dañuy euh, liggéey mais di ci rax leneen loo xamante ne bokku si. waaw xadi trafic des jeunes domestiques la ñuy waxtaanee ñu gis que ni rek jànk yi dañuy faral di def ay trafic yu doy waar ci biir kër yi moo tax rek tey comme man jeunes yi li nga xamante ni noonu la ñuy def te dëppoowul ak yoon rek lay toog di ci waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci seen salon di ñu ñu jël euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy jànk yi def trafic waxuma que ni jànk yëpp ay def trafic xadi parce que nit liggéey na ci kër ba ñu maye ko mu dem sëy yi nit liggéey na ci kër ba tuddee leen doom donc foofu je moom moo fa am mais dafa am ñoo xamante ni euh, du ñu fekkee jàmm te duñu ko def donc euh, bu njëkk bi may jël xadi damay jël exemple sàcc parce que sàcc moom la ñuy faral di gën a gis ci nga xamante ni moom la jànk yi di def jànk yu ci bari peut-être moom mu ñu seen loolu sax jikko laa koy wax ñu ci bari peut-être jikko lay doon bu ñu bu ñu judduwaale ñëw indi ko ci kër euh, du ñu téye seen loxo dañuy faral di sàcc am ci ñoo xam ne xadi sax amaana ba daawuñu sàcc mais kër bi ñuy liggéeyee Euh, euh, xaalis bi peut-être ba bagage yi yomb na seen bët yomb boo xamante ni pour ñu jël ko après euh, ñu bañu ko remarqué dafay yomb muy désordre bi nga xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy faral di bàyyi ci kër yi da ngay gis ku xëy yeew peut-être dem liggéey dina bàyyi këram de façon boo xamante ni nii loo fa jël sax yow du ko xam su fekkente dafa essayer une fois mu mu jàll mu mu essayaat mu jàll dafa koy tàmm donc xaalis bu fa traîner da koy jël bagage matériel boo xamante ni yomb naa yóbbu bu ko fa gisee da koy jël te yow doo ko remarqué wala nga nga nga baax torop xadi ama souvent dama koy wax euh, jànq nit la comme comme comme comme yow war nga am ak moom ouverture boo xamante ni dafay mel ni ko bokkal ndey ak baay parce que mm-hmm. dalay leen ne bu amoon beneen liggéey bu gën a euh, yomb sa sa bu gën a sut jànq bi doo ko gis sa kër mm-hmm. bu ñëwee peut-être tolluwaayam moom moo tollu foofu et que lu ñuy wax faral di wax tout le ne nit warul toog bañ a liggéey moo xam góor la nag wala jigéen la mais peut-être dañu baax ba mu ëpp ci seen ci seen i jànk jànk c'est vrai du jàmbur mais xadi dafa am ñoo xamante ne ba ci seen armoire dañ fay yebal dañ fay yebal seen jànk koo xamante ne peut-être euh, jàmbur la ci yow xamoo ban genre nit la mm-hmm. te jànk yu ci bari euh, peut-être du ñu sàccantu mais coup bu mag lañ ñuy def ça fait bu ñu paree dañuy bàyyi directement donc xam nga ñooñ ñoo ñoom ñoo gën a metti te mënoo leen a xam mhm. te bu fekkentee da nga xaw a tàyyal ba yow boo xëyee chaise bi ngay toog jànq bi eh, lépp loo soxla moom moo la koy dem jële li ngay dem ba koy yebal sa armoire donc kooku pour mu sàcc la euh, du la bett mhm. mu muy kaawu kaawu jànq bi ci boppam ñuy sàcc xadi beneen bi eh, ba tey ci sàcc bi eh, jànq bi mën na bañ a sàcc mais complot ak kuy sàcc ku nekk ci kër gi parce que euh, man ak yow ñoo fi nekk su ma sàccee su soo réeralee man maay am problème parce que yow yaay sàcc mais mën na am beneen troisième personne bu nekk ci kër gi jànk bi mën na jàppale mhm. séddoo bu fekkante benn célibataire la bu nekk ci kër gi xëyul gontu football yi lay def bu añee ba pare euh, mi ngi ngoroyoo ak bi ci kër gi donc kooku pour ma jàppale la euh, nga sàcc ko dafay yomb moo tax trop gentil baaxul ci ci ci nit ak sa ak sa jànk waaye tamit bon tamit baaxul ci sa ci sa jànk parce que mën na la jéppi xadi ba def la yenn yi mënoo nekk kii jànk la am na ñoo xamante ni même bu fekkante wàññeeku na fi euh, doo koy faxal nag di gis ci banlieue bi parce que boo duggee ci kër bu am jànk euh, pour nga xam ne kii jànq la sax du yomb parce que ñoo bokk añ ñoo bokk lépp mais dafa ci am ci ay kër yoo xam ne xar yi seen jànk yi ñemoon toog seen boolu añukaay mm-hmm. ci waañ bi la ñuy yem fa la ñuy simmeekoo bu ñu sangoo seen yére yi ci waañ bi di fa simmee ko di fa defee lépp kooku pour mu def la dara dafay yomb même bu fekkente loolu nekkul raison pour mu nga dem sàcc nit parce que yaa dem ne da nga fay liggéey mhm. léegi sax je pense que ni ñi nga xamante ni am nañ yenn matériel wala ñu ngi denc yenn xaalis yi ci kër yi du ñu dem jël n'importe qui dañuy dem ci agence yi nga xamante ni dafay dajale ay jànq ñu recruter fa ça fait lu fa lu fa réer waa agence bi ñoom ñooy am problème ñu ci bari je pense que léegi yeewu nañ ci ci ci phénomène jànk yooyu la mm-hmm. mais dafay gën a cher que jànk yi nga xamante ñoom ñooy ñëw surtout période vacances euh, séeréer yu ndaw yi si ñi ma ko sañoo wax sama séeréer yi samay kal lañu bu ñu ñëwee Dakar Euh, dañ ñoom ñooy gën a yomb te te pratiquement ñoom ñooy dàkk liggéey mais xam nga ñooñ trois mois lañ lay defal ñooñu pour ñu jëlal la demal la si yoon dafa yomb donc mu muy kaawu sàcc yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di ci kër gi des fois nag xadi bi ci gën a pire moom mooy euh, di nga am koo xam ne peut sa doomu jëkkër la wala sa doomu jiitle la bu nekk ci kër gi jànk bi saay ci yow yow moom nga koy jiit mm-hmm. des fois nit euh, moo tax nekk ci kër amoo benn métier dafa xaw a dafa xaw a doy waar dañ naan luñ fi luñ fi wax lu dul dëgg dañ naan yow la aussi luñ fi sàcc dañu naan yow la te jànk yi ñu ngi tas kër yu ndax yi loolu dañuy jël dem nañ xaritoog seen seen patron ba nga xamante ni euh, luñ koy wax dafay gëm bu ñu sàccee ne diw moo ko jël du ko weet danaan moo ko jël parce que xëyu gontul donc war nañu bàyyi jël euh, jànk yi di ko teg ci seen diggante ak seen euh, waa kër yi mm-hmm. parce que la rek dafa ñëw ci kër gi après tey day liggéey bu subaa mën nga ko dàq donc war nañu bàyyi xel bu baax ba jànk yi nga xam ne dañu ñëw pour liggéey ak ñi nga xam ne dañu ñëw pour yàq xade mooy euh, euh, sàcc bi bu du sàcc bi kase la euh, trafic la jànk yi di def nu ñuy trafiqué di sàcc xaalis noonu la ñuy trafiqué ba jël seen jëkkër yi. Ah waaw loolu moom am pagaay am na fi nekkatul sax kii ndax ñaata ñaata góor nga gis ni takk seen jànq. ñaata góor nga gis ni am ak doom seen jànq. ñaata du fotu ku jigéen kii. waaw waaw waaw am na benn problème bu mhm. jigéen jigéen la. yow bu fekkee da nga am sa kër. yaay war a toppatoo si jëkkër boo ko def soo xëyee yaa ngi dem toppatoo yëfu ma sàmba yëfu ma demba mm. boo wëree bu la sa jëkkër ne dama def lii taloo ko nga dem góori ji mais bu kooku wàccee gis euh, xale bu jigéen bi moo koy toppatoo moo koy jox mu lekk moo koy jox mu naan ndox sax lépp moo koy defal mais euh, euh, am na mais am na góor jigéen góor yoo xamante ne seen jabar lépp la leen di defal mais du tee tamit mooy sànni jànk bi voilà tout comme am na jànk yoo xamante ne moo yi elles sont un parce que dafa am lu ñuy wax xam nga ñu ngi wax histoire nawetaan nawetaan définition dëgg njëkk bi lan la woon lan moo andi nawetaan mooy dañuy ñëw nawet te naa daan gis ku nekk ci àll ba gerte ñor ay xale ñu ñëw ñuy jàng école ñu ñëw di jaay gerte di jaay gerte ba xaalis seen xaalis mat si li ñuy jëndee fourniture dellu village ñooñu tamit xaj tamit perspective nawetaan la ñuy def mooy parce que dañuy tëj seen école seen mm-hmm. waajur yi seen loxo jotul seen ginnaaw mm-hmm. ñu ñëw Dakar di liggéey ñetti weer dajale xaalis pour dem jëndi seen kayaar seen lii parce que bu ñu xam ne ne la ñuy wax parce que bu njëkk ba la am amatul mooy dangaa dem toog ubbi école te man maa ngi koy fàttaliku da ngay ubbi école premier jour ñu ñëw jox leen fu ay fourniture chef ak ah, classe jox la cahier jox la bic jox la livre sax dañ la koy jox mais loolu amatul. mais teewoo dafa ci am dafa ci am ñu ñëwaat dafa ci am jigéen ñoo xamante ni danga nga leen di xool ñu ñëw ci kër yi wut liggéey nga xam ne ñii liggéey taxu leen a jóg. Mhm. yow loolu ngay da xam ne ñii liggéey taxu leen a jóg. mais yaa leen jël la. mais mais mais est ce que boo leen xoolee ci si am yëpp voilà. c'est que teewoo. Mm. c'est-à-dire da nga def benn théorie mais man ànduma ci. Mhm. cest à xam nga nit yow yaay may sa bopp. c'est ça. tu peux pas prendre une bonne tu mu nekk say moromu doom wala je ne sais pas quoi tu es dans une famille nekk borom kër dafa am bases yoo xam ne nit waru ko def mm. c'est-à-dire na la jox añ na la jox reer c'est à toi de dire à ta femme c'est pas à elle de me faire ça yoo xam ne c'est des problèmes internes qu'on règle tu le mm. règles en couple mm-hmm. c'est-à-dire mbindaan bi mën na togg c'est que aussi mbindaan à ah, quoi que li ñuy gent wax nga sànq ni non bu bëri baaxul mm-hmm. une bonne c'est une bonne qu'on m'excuse mm-hmm. dafa ñëw intégrer une famille. pour jàppale la ci liggéey pour jàppale leen ci liggéey bi. par exemple soxna si. Mhm. mu war fa technique boo xam ne peut-être moom heure bu jëkkëram di ñëw walla doomam yi di wàcc heure boobu moom du fa nekk mu indi xam nga nit nag bu la wóoloo ba jox la loolu yow. ngay def yenn yi doo doo def sax parce que góor ñi aussi des fois il faut le reconnaître c'est des catégories c'est des catégories mhm. maanaam ay façon yu góor lañu parce que aussi góor boo demee ba après ngay xalaat yow sa mbindaan muy nekk sa xel ba mën a yëngal sa sëy ba def yenn ah. affaire c'est autre chose mm. Mm. ça c'est une manque de personnalité mm. man loolu laa gis que mu jox la boo nekkee góor gu am fulla te man gis naa des personnalités de grands hommes yoo xam ne da leen di at mais seen jabar day wàcc rek ñoo ko non c'est comme ça mais c'est des choses que tu soumil tu soumil ngay xool c'est parce yaa ko bëgg aussi même dans le cas contraire xadi bon bi sax la ñuy kii. mais xam nga bon bi sax jigéen la bon bi jigéen la. man kii wu ma c' est vrai que je favorise pas les femmes mais je t'explique parfois aussi. c'est c'est une démission. yow boo waree soo waree sa jëkkër yaa ko war a toppatoo. mais soo ko bàyyee tamit nga dem def doxi nga war a tegal sa jëkkër nga dem wóor ji. ah non du question la woon xam nga xam nga xam nga est-ce que c'est pas une raison tamit pour ku ku góor ki mu fàtte jabaram di di teg mais sax jigéen la jigéen ak góor ci kër mën imaginer mën nga am jabar joo xamante ni peut-être yéen ñaar bokkoo leen heure bi ngeen di liggéey mais bu fekkente xawul bari Sénégal heure añ mu ngi ko fekk moom mi ngi liggéey yow yaa ngi yow yaa ngi nekk sa sa kër ga di mais moom peut-être jànk bi mu jël euh, nekkul pour defal ko jëm mais temps boobu pour mu jox jëkkëram mu lekk la mais waruñu ci abuser jigéen ñi bu ñu xëyee fi ñu toog la ñuy toog jànk bu ñu xëyee seen jànk yi ñooy dugg seen léegi euh, raxas seen salle de bain yi lalal leen seen lal bu ñu fanaanoo ak seen jëkkër donc faute bi moom loolu foofu la mais dafa ci am jigéen ñoo xamante ni loolu lañ ci bëgg déjà bu ñu ñëwee dañ lay ñëw bëgg la def comme sœur déjà juste pour xaman la parce que sa jëkkër la teg bët mais ñu ci bari dañuy bëgg sa jëkkër euh, ñeme amuñu ci moom mënuñu jot ci moom dañuy ñëw liggéey ak yow juste pour jot ci moom parce que xam nañ ni boo xëyee da ngay liggéey peut-être sa jëkkër moo leen ñu ko waaj mais góor nga comme kii ni te souvent femmes jeunes yi elles ont euh, accès à tout parce que ba dañu ciy profiter pour sëriñtu sa jëkkër ba lu ñu lu ñu wax moom la ñuy def. ça aussi ça dina ñëw ci système boobu parce que xadi euh, ñoom ñoo koy jox mu lekk te ñoo koy jox mu naan euh, frigo bi bouteille yi ñu fay dugal ñoom ñoo koy rot donc kooku moom munoo munoo munoo kii munoo koo kii wal daal munoo mucc ci moom mhm. donc su fekkentee dafa ñëw ak eh, intention yu bon kooku munoo ci dara te woon munoo ci dara mais dafa ci am ay jànk yoo xam ne man personnellement du ma leen jël parce que munoo ñëw sama kër ne da ngay liggéey pour say ongul def say def say sil nga ne da nga sol sa lu la neex nga ne da ñëw di liggéey si sama kër nekk pour fiir wara pour dara mais da nga xam ne kii liggéey tax ko jóg même bu fekkantee instant bi ñu toll jànk yi taqatuñu fii ay téere waddootuñu ay sër dañuy sol seen baa peut-être liggéey ci et tout dafa am yoo xam ne nag c'est abusé comprendre nga donc mu nekk loo xamante ni euh, ci ci ci jigéen ñi laa koy laa koy waxee euh, peut-être ñàkk a jongee laa ko tuddee peut-être loo jàpp-jàpp sa jànk lu mu liggéey liggéey bu toogee ba pare ñëwal yow nga dugg ci waañ bi nga yàq yow nga ñëw dëjal sa jëkkër parce que yow yaay jabaram jànk bi nekkul moo war a ñëw pour def liggéey bi ci kër gi mais dafa war a ñëw pour jàppale la parce que liggéey bi ci kër gi boo ko bàyyi yow yow nekkoo di def dara mm-hmm. donc mu nekk trafic boo xamante ni jànk yi ñu ngi tas ay sëy yu bari te Théo man mënuma concevoir nga ne kii sa jànk la mu ngi nekk sa kër peut-être xamal na sa jabar lu bari ngay sëkk ak moom yenn yi Eh, góor ak jigéen la mën nga ko bëgg yàlla yàlla mën na ko def mais soo ko bëggee dàq ko sax bu bàyyi après nga dem di ko fekk këram kooku amatul accès ci yow parce que bu fekkente yéen a ngi gisante ci suuf wala peut-être sa jabar bu génne nga am lu sekk ak moom eh, kooku bu fekkente yow fi nga ko teg moom teg na la fa da koy jaral lu nekk ci lay nag dem duggee nag ci sëriñ dem dugg nag ci famille bi dem dem dugg ba nga xamante ni yow après sa ménage mënatul neex te yow doo ci xam dara ñaata nit ñoo dugg seen kër fekk seen jëkkër seen kaw jànk moo xam ñu wax mu siiw moo xam ñu nëpp nëppal ko dàq jànk bi te ko dàqee mooy gën a métti tax dañ koy dàq jëkkër ji te mu vengé wu takk ko teg ko fee jànk bi la xamal sa lal muy mel jànk bi xam sa lépp kooku boo bëggee wujjeeg moom téwoo dafay métti mu nekk lu doy waar loo xamante ni mu ngi yàq ay ménage yu bari te sama mbokk jigéen ñi ñoom ñoo koy faral di di def te duñ ci duñ ci rendre compte je pense que ni trop gentil c'est c'est vraiment trop Euh, sa jànk ak sa néeg man moom je pense que ni man jànk moom waroo am accès si sa néeg même bu amee benn néeg boo xamante ni peut-être mën na fay nelawee bu ko neexee mën na fay changer mais pas sa néeg bi nga xam ni yaa ngi fay nekk ak sa borom kër euh, aussi tamit jël lépp bàyyi koog jànk bi nag muy def sa lépp ba mu des am ñoo xam ne seen jànk yi sang rek lañ dul def seen jëkkër yi sang rek mais ñoo leen di defal lépp même bu ñu yeewoo ci kaw lal bi ñoo leen mais aussi mais aussi y quelque part où les femmes dañuy prêter disent la vérité parce que mhm. boo demee aussi ba sa bon interféré wu dans ton couple day dem sax ba dañ leen di jaxase yéen ñaar c'est puisque quelque part yow tu as laissé le flanc puisque un mari c'est pas pour trois mois mhm, di capp-cappal di def di indi di raay tànk di def c'est pas ça c'est une continuité puisque les hommes à partir d'un certain moment boo leen gérer ba gérer too leen rek dañuy commencer du donc voilà il boit du noir ñu ne kii daal da ngay wax duñ la ko wax personnellement puisque du am communication mais ñoom aussi dafay am lu ñuy xalaatee. alors puisque c'est les ah, c'est la vérité sur ce plan là ñoom ñooy prêter le ba affaire bi am. pire alors Ousmane aussi am na ay deal yoo xam ne ñu ngi koy faral di def jànk yi ci biir kër yi Euh, euh, des fois ku jigéen ki génnoon journée bi ñëw peut-être fay jànk wala jox ko xaalis pour jëkkër ji bu ko laajee ba xam euh, jànk bi kii génnoon na mu bañ ko wax mais naka ngeen nekkee yéen ñaar couple di jël seen jànk di ko dugal ci seen ménage ba muy war a wax kii heure bi la wàcc kii dafa génnoon heure bi dafa dem ba léegi jigéen ñi bu ñu génnee dañuy wax seen jànk yi ñuy déglu seen jëkkër bu ñuy waxtaan téléphone donc kooku lu mu dégg bu ñëwee dina la ko wax après yow ngay joteeg sa jabar ci loo xam ne yow xamoo ni Euh, peut-être ki lay fenal mu ngi si biir kër gi te yow mënoo ci mënoo ci bàyyi xel te en général dafay xaw a nekk jigéen yu xaw a innocente yooyu nga foog ni dañuy yaru ñu ñëwee rek sëgg fekk na ñu ngi tas sa sëy yow bi nga génn la wax sa jabar bi nga duggaat diñ ko képp ko wax téléphone wala euh, seen jëkkër yi di leen may xaalis di nga wax ni bul wax sama jabar nangam ku fi boo ñëwee nga ne ko tontoo diw ñëw na fi wala nga envoyé ko message parce que léegi téléphone moom moo yàq dëkk bi mm. donc jànk léegi mu nekk loo xam ne man man man euh, su ma dikkee ni surtout ak jeune couple yi famille peut-être dina am benn mag bu xaw a mature bu bu bu mën a wax ngeen bàyyi jànk bi xel mais bu fekkente yow ak sa jëkkër kase yéen a dëkk ngeen jël jànk bi du ko mës dàq ci àddunaam bu góor ki aussi bu fekkente góor euh, jànk bi moo koy wax di lii jabaram di teg aussi du ko mën a dàq donc kon seen sëy du neex neex ba ca war te koo xamante ni ko jël di ko fay par weer je pense war a mën a yëngal sa sëy problème y problème tu sais pourquoi parce que mhm. man je comprends bëggoo sa jëkkër yow ngay ngay neexal sa jànq pour mu bañ a wax ci y'a problème y'a problème attention y'a problème dans ce cas voilà yaa ku góor ki bu ko defee mhm. man pour man am na lu muy nëbb ku jigéen ko defee am na lu muy nëb. donc manque de confiance moo am ci couple boobu. réellement donc ça veut dire que voilà léegi parce que day lekk day lekk moom moom dañ ko ciy jox rek moom moo ko ci. intérêt mais loolu parce que bu ma demee bay nëbbut sama jabar ne ko ah man wàccu ma heure bi heure bi c'est am na fu ma jaaroon. bu ma mu yëg ko je pas qu'il y ait discussion moom aussi mu def noonu. ça veut dire que c'est couple qui bat de l'aile et au fur et à mesure muy avancer ça va exploser. ça c'est super